Eh, jaa ngeen jëfati eh, mbokk yi woy ànd ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu ñu daldi di dellu rek fàttali lay doon ngir may ki xamut ki xàmmewut ki ràññewut ñu mën ko dimbali ba mu gindeeku mbokk yi xam ngeen ne jàngoro mooy noonu njaboot te li noonu ci njaboot daanaka buñ ko seetaanee mu tilma réew lii di coronavirus misaal la ci kenn amatul noflaay lii wareef rek mooy ñu moytu ko te liñ koy moytoo mooy topp digle yi nga xam ne ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu muy waa kër docteur kon mbokk mi seetaan ak déglu dimbalil sa bopp te dimbali réew mi te dimbali kiy faj te dimbal bi du lenn lu toog saw kër dimbali bi du lenn lu dul soo amee lenn loo xam ne yaa ngi koy yëg te nga demoon wala kenn ku fa nekkoon nekkoon ci bërëb bu kenn fenn lenn amoon nga jot mu ñëw nga commencé nemmeeku li ni mel su dee yaa ngi sëqat wala nga am looy yëg fièvre bu yëg wooteel si numéro yi ñu lay jox soo ca wootee dina am ndaw bu lay fekk si fa fa nga nekk daal di la dimbali. yow miy génn soo dee sëqat musaar ba ngay jëfandikoo sànni ko ci bërëbu mbalit mi yow mi génn foo mën a dem bàyyil xel di raxas loxo yi mu set yow miy togg la ngay togg mu ñor. yow mu nekk ci dëkkuwaay bi di defar ubbil fenêtre yi mu yànji commande yi ñuy bàyyi xel portable yi ñuy bàyyi xel yaakaar naa ne lii suñ sa saxoo suñu borom mën nañoo dimbali mbokk yi ñu amoon mbégte gu rëy rek fàttali lay doon ndax la ñuy wax yéen ko gën a xam waaye nag suñu dina ma ñu may saa su ne ñuy fàttalante suñu biir te fàttali bi du lenn lu dul respecté digle yi nga xam ne nguur gi joxe nañ ko jaa ngeen def